dañoo bëgg tey tey premier sama première question mooy sama mbokku jigéen ñi laa njëkk a laajal lan mooy gaar euh, jigéen ba tax du am borom kër parce que dañ gis xale yi jigéen dañuy yéex am jëkkër ba tamit ku ci am jëkkër tamit doo yàgg ci sëy ba. alhamdulilahi rabbil alamin macha allah soxna si laaj bu ne dégg naa ko waaye sa laaj bi moom jafe naa dégg lool yal yàlla barkeel sa liggéey te ndey liggéey nii la. su defee ñi ngay liggéeyandool moom nañ la bàyyi xel ndax royuwaay nga macha allah fu baax nga bokk fu tedd nga jóge lan mooy gaar jigéen ñi ba leen ba tere leen a am jëkkër question bu am solo la bari na nag bari na bari na ci jigéen ñi dañ ñu ci bëree bëree bëri dañuy mbubboo ni jullit lañu te duñu def yi fi jullit su boobaa alquran dafay wax ni mu sab-sab bii na bayna zalika laa ilaa haulaai wa laa ilaa haulaai man jullit laa te suñu ñëwee ba xool la yow doo def yi fi jullit col gi du jot col gi du yaatu bopp neen fula neex dem sama ben xarit bo xamni chrétien la dama wax ni ma serigne mohammed maniko ne muñ labbayka ma man day dama setlu ni suñu sàngara ci yépp julit yi ñoko ko wa lool loolu wax ko defé jafé na nga gis ci mbéd mi ku ku jéng naan sangara ba jeng soo laajee ñu ci rek mohammed fàllu nangam sàngam nangam sàngam tur yoo xam ne daf lay wóor ni ki ke julit te yàlla soo nekkee jullit ba pare dafa am lu ma xaraamal ci yow su ko defee jigéen ñi leen daal maanaam ñu nekk jullit ba pare moom dañuy def fi jullit loolu nag mooy tax seytaane dugg leen ba seytaane ci boppam am ci ñoom ndax doomu aadama yàlla du mu bind ñaar la yàlla daf ko bind ci ñaar muy yàpp bi ak deret bi ak roox waaw su ko defee roox mi ngi ko jóge ci suuf kii yàpp bi ak deret bi gismaani mm-hmm. yu mi ngi jóge ci suuf lañ ko yàlla defee mm-hmm. waaye nag roox moom ba ñu laajee yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam yàlla dafa wax yonent bi ni ko tontu leen ni leen ruux moom su ma mbir la ma yàlla yàlla moo xam mm-hmm. ala kulli xaal su boobaa nag ñaar ñooy composé nag kon doomu aadama ñaar ñooy àndandoo seytaane ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam su ko defee su boobaa nag iman shakira wa iman kafura soo àndee ak yonent bi dañ bokk ci shakir yi waaye soo ànd ak seytaane nag da bokk ci kafoor yi yonent bi ñan ñooy njabootam malakai su boba man nga di gën a raw xaal tamit mais seytaan ñan ñooy njabootam jinne nga wacc ba ne rab kon su boba jigen ni ginnaw bu ñu defee kafoor maanaam ci njabot kafoor bi su boba rap da len di manipuler lolu ñu bayyi ci xel beneen bi ci topp mooy dàqe bu bari dàqe bu bari gis nga doomu aadama bu yàlla wàccee ci kaw suuf ku mënti doon nag bis jot na yàlla ubbil la sa porte souvent nga exploité ko sauvé wala nga ñàkk ko exploité perte waaye yàlla nee na wama rabbuka bi zallaamin dil abid yàlla nee na man tooñu ba benn jaam ñu bàyyi ci xel waaye nag su fekkee ni bis bu set ku ñëw nga ni man kat damay dund ak moom pour xam jikkoom te koo xool ci koo ko nit kenn xamu ko yàlla rek moo xam nit ñu bàyyi xel ci loolu su defee loolu nag bari na lu mu gaar jigéen ñi nañu xool tënku ci li ñu bokk muy nekk def yi fi julit. su boobaa dañuy bokk ci njabootu yonent bi sallallahu alayhi wasallam te su boobaa dañuy jàppale ña leen di ñaanal moo xam way jur la moo xam sëriñ bi la insha allah taala su su ko defee nag après ñu ñaan yàlla subhanahu wa taala waaw ñu ñaan yàlla ñu ñaan yàlla ñaan yàlla bi nag man maa ngi digal sama mbokki julit di xaaloo soo demee ci suuratu yasin aya 51 51 52 yàlla mi ngi fay wax khalo ya waylana ba'da aus billahi minash shaitani rajim khalo ya waylana man baasna min marqadina hadha ma wahad arrahman wa sadaqa almursalun koy faral di sikkar yàlla mën na leen a tànnal moo xam góor la moo xam jigéen la yàlla mën na leen a tànnal ki gën ci ñoom mu indil leen ko yàlla na ci yàlla def barke koy téeméeri yoon cent fois waaw incha allahu taala lay doon xam nga heure yi yëpp heure yi yàlla la waaye nag am na heure yu ci yoo xam ni eh, ci la yàlla di gën a gaaw a nangoo ñaan bokk na ci diggante timis ak gee heure nangu ñaan la bokk na cee tamit maanaam diggante bi nga jullee fajar ak bi ngay jullee suba boobu heure nangu ñaan la xaar ba nit ñi nelaw nga jóg wéetal sa borom su boba tamit heure bobu yalla neena rusna gantal sama jambing, bi nga xamni ñepp ngi teud di nelaw bu may wétal man yalla wa su ko defé su boba tamit serigne sé tamit ma ngi leen di digal ku bëgg sey client dekk da ngay lak fananal so demé ci fuur bee dañuy fanané lak parce que dañu bëgg seeni client dekk wa su ko defé di nit ki bayyi ñepp wolu la nila yow kat ñaanal ma yalla nga teud di nelaw ak xel mu dal su boobaa nag euh, doy na waar bu defee ñuy fàttaliku yàlla di ko wéetal waaw na jërëjëf soxna si. ayca mi ngi noonu kon sama mbokk jigéen ñi nga xamante ni amaguñu boom ñaan gaa ngi noonu euh, buñ ko weer dara incha allah rabbi yàlla dina ko nangu incha allah ci kàttan yàlla. Ah, waaw waaw fii nag moom. Ah. wax waxewuñu waxu fans waxu taalibe. <laughs> waaw waaw ñun ñi nga xamante ne ah. sëñ Bamba rek lañ bëgg. lañu dem abonné ak ñi nga xamante ni sëñ Bamba rek la ñuy nooyee nañ dem abonné El Vision Médias